Babacar kuma footballeur international Sénégal. loo xamante ne dafa nekk ci man ma yàgg ko bëgg te fima ma dëkk nii ñu soxla ko lool ci samay objectif la bokkoon moo tax am rek pour indi lu mën dimbali sama gox Ina ko def nekk ñu dëkk boo xam dafa développé te yii rek ngay def si ngay dugg si hôpital yeeg yooyu noonu nit ñi mën ci gis seen bopp parce que ñëpp faju té dafa doon lo xamné ne bëggoon naa ko té sama famille tamit ci yoy lañu mësa dund ci yoy lañu mësa def sa dëkk nga ñëw sa fi nga xamné fa nga soso fa la lepp commencé sa nga fi nga ñëw kon contentement bo rek ngay am té dañuy kontaan parce que fi fi ñu nekk ni fi la lepp commencé ñu ñëpp fi lañu juddoo fi lañu yoro fi lañu maggé loy def rek def ko ta yalla tax ñu nol man mom mentalité bobu la amone ba légui ni sa mo nekk sama dafa dafa jot nak dëgg la ke li ngay def nit ñi gis ci ñeneen ñi mëna def waaw parce que yàlla mooy fay doomu aadama yàlla mooy fay lu ñu def nañ ko defee te ngir yàlla yàlla mooy fay man li ma njëkkoon soxal li nga xam ne moom la njëkkoon soxal mooy si côté don yeeg yooyu mooy euh, hôpitaux yi man loolu santé bi man moo ma moo waaw njëkkoon yitteel après nag li nga xamante ne mooy moom lay yëngu muy football loolu dinaa ci ñëw mais yaakaar naa ne santé mooy priorité ndax yaakaar naa ne boo amul wérgu yaram li nga bëgg a def mënoo ko def waaw lépp loo gis ak wér-gu-yaram la ndax euh, ñun ñi taxaw fi bu ñu amoon wér-gu-yaram duñ fi mën a taxaw xam te boo mu wér-gu-yaram doo mën a def lenn moo tax ñu bëgg a taxaw si loolu ba wér affaire bi gën a yokk après ñu dem xool leneen si si ñun si liy yëngatu quoi. barkeel seen liggéey te barkeel leen te daraja yonte bi sallallahu alayhi wa